الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
عباد الله عناصر الخطبة أثر وقفات بعد رمضان الو... الوقفة الأولى من الذي استفاد من الرمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن أيها الأحباب فمغفرة الذنوب بهذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سبق من الذنوب وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi sunu xutba tey mooy ashara waqafaat baada ramadan mooy war nañu taxaw fukki taxawaay ginnaaw weeru koor maadaama woor nañ weer yi ba mu jeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu waxoon ne ku woor weeru koor nga taxaw guddi yi julli nga boole ci laylatul qadr mu ne ñett yi fa magfiratu zunub bi hadihi salaasa ñett yi ko def yàlla jéggal na la ñu woor weeru koor gi mu jeex kon pour ñu jéggaloon nu ci weer wi charte yi moo doon lan mooy nu woor weer wi mu jeex pour ñu jéggaloon nu ci weer wi mooy lan mooy ñu taxaw guddi yi naafi la ñaar yooyu kon wees na laylatul qadr moom ci guddi gi ci boppam boo ci taxawee ba mu jeex yàlla jéggal la kon ñett yi moo doon sart yi nga xam ne boo ko defee yàlla tabaraka wa taala baal la sa bakkaar bu fekkee ne weeru koor gi mat na iza tamma shahr faqad kamula lil mu'mini faqad kammala lil mu'mini siyama ramadan wa qiyami fa yatarattabu ala dhalika maghfiratu zunub bu la yàlla dimbali woon nga bokkoon ci ñu doon weer woor weer wi nga bokkoon ci ñu doon naafila guddi nga bokkoon ci ñi taxaw laylatul qadr kon yow yëgal ni sunu borom subhanahu wa taala jéggal na la say bàkkaar ndax yonent bee ko wax waaye mbokk yi su fekkoon ne da ngaa matal loolu nga def ko comme niñ la ko waxee su boobaa la ñu mun a assuré ne yow yàlla jéggal na la say bàkkaar waaye waman naqasal amal fala yalumanna illa nafsa kama taarifuna anna salat mikyal wa siyam mikyal faman waffaha waffa allahu lah wa man taffafa fihima fa waylun lilmutaffifin fekkoon ne nag ca koor ga da nga doon def lu la neex ca guddi ya julli ya da nga daan def lu la neex guddi laylatul qadr da ngaa def lu la neex li nga doon def dara matu ci yow perte nga ndax julli nattukaay la koor nattukaay la su fekkoon ne da ngaa bokk ci ñi nga xam ne mataluñu lañ doon nat kon fay bi du mat moo tax borom bi ne bu fekkente ne nit ki ci àdduna la natt natt gu manqué yàlla ëllëg yowmal qiyaam mu perte te loolu mbirum àdduna la fa waylun lil mutaffifin loolu lan la mbirum àdduna alladina hum ida ktaalu ala annas yastawfuun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun ala yazunnu ulaika annahum mabuusuun loolu yëpp mbirum àdduna la waaye da doon natt ci àdduna waaye da doon manqueel mbirum àdduna la léegi nag tey nattukaayam bi julli la ak koor mu manqueel ko te loolu mbirum àllaaxira la kon léegi luy mbiram koo xam ne manqueel na mbirum àdduna am problème masamaak nag mbirum àllaaxira fa kayfa xaalu man taffafa mikyaali diin su fekkee ci àdduna nga wàññi nga am problème kon ëllëg àllaaxira soo wàññee foo jëm loolu tax ñu war a taxaw fukki taxawaay ginnaaw Ramadan ñu càmbaraat sunu bopp xool sunu bopp kayfa xaalu man lam yaqum wa lam yasum wa hum aada yantasibuna ila al islam te lu doy waar mooy tey ñooñu mànkeel nga xam ne wooruñu woon naafila wuñu woon julli wuñu woon ñooñ ña ci ëpp tey dañuy askanoo lislaam dañ naan ay jullit lañ ñoom ngay fekk yàlla sant leen ci weer wi ñu lànkoon ne duñu def tey weer wi jeex na te xam ngeen ne jibril ñaanaloon na ku fekke weeru koor te fexe woo yàlla yàlla balla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax amin mbokki julit yi loolu mooy première taxawaay ku manqué loon koor ku manqué le woon naafila ku manqué le woon jaamu yàlla ci àdduna fekkee mbirum àdduna nga manqueel yàlla mbugal la kon mbirum diine soo ko manqueelee foo jëm ñaareelu taxawaay alwaqafatu saaniya tawbatu lmuqassir fi siyaamih wa salaatih wal istigfaar amma mada li war tey ginnaaw ba koor jeexee mooy ki manqueeloon mu jéggulu mu tuub dellu ci yàlla ci kooram ak julleem mu jéggalu yàlla tabaraka wa taala la passé woon mu bañ a féttirlu mu bañ a rëy-rëylu bañ a dangiiral delluwaat ca mbon nga bal li war waa jooju mooy al istigfaar wa du'a bil maghfira na ñaan yàlla mu jéggulu mu tuub mu dellu ci yàlla tabaraka wa taala وقد جاء في الدعاء عن ابي هريره رضي الله عنه يغفر فيه الا من ابى قالوا يا ابا هريره ومن ابى قال من ابى ان يستغفر الله عز وجل ابو هريره نينا ñew na ci tegginu ñaan yalla dina baal ñep bam des ku bañ abu hurayra ne nit ñu laaj abu hurayra ne ko naka la nit di bañee jéggalu yàlla naka la nit di bañee yàlla dugal ko aljanna mu ne ku jéggalu yàlla kooku bëgg na yàlla dugal ko aljanna ku bañ a jéggalu kooku dafa bañ a dugg aljanna qaala alxasan rahimahullah aksiru min al istigfar fa innakum la tadrun mata tanzulu rahma al imam hasan nee na ngalawaay dee leen jéggalu yàlla lu bari dee leen wax astaghfirullah ndax xamu leen ci waxtu wi ngeen koy wax ndax yërmande yàlla mu ngi wàcc kon li ñu war mooy jéggalu wa qala wahidun mimman mada li waladi ya bunay awid lisanaka al istighfar fa inna lillahi saa la yaruddu fihinna sail kenn ci nit ñu baax ñi dafa ne woon doomam doom mu ne ko bàyyi wuy naa la mu ne ko deel bari looy wax astaghfirullah di jéggalu yàlla ginnaaw ramadan ndax kat am na ci waxtu woo xam ne ab jaam du jéggalu yàlla ci waxtu woowu mu tombeeg waxtu yu yàlla di nangu ñaan lu dul yàlla dina ko jéggal mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala kon mbir maa ngi ni ñu war a taxaw ay taxawaay yoo xamante ne sunu bopp lañ koy taxawal wa qad jamaa allahu bayna altawxid wal istigfar yàlla tabaraka wa taala dafa boole ci benn aaya kennal yàlla tawxid ak jéggalu yàlla wax astagfirullah fi qawlihi faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zambik xamal kennal yàlla kenn dong lañ ko war a def mu yàlla faalam annahu la ilaha illa allah kon yàlla daa boole ñaar kennal yàlla ak jégglu ginnaaw ba nga amee tawxid kon lu la war mooy ngay wax astaghfirullah di jégglu yàlla qaala iblis ahlaka naasu bi ahlaktu naas bi zunub fa ahlakuni bi laa ilaha illa allah iblis mu alkumi ci boppam nee na alak naa nit ñi ci bàkkaar yu bari waaye day nit ñi alagee nañ ma ci wax astaghfirullah nit ñi def loo naa leen ay bàkkaar maa leen koy lore di leen ko alage waaye saa yu ma leen loree ci ay bakkaar ñu lor ma ci astaghfirullah fal istighfar xitaamu al amalu saliha kulliha mbokk yi def ba pare gis nga ginnaaw julli juróom bu ñu sëlmalee rek julli suba lu ñuy wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bu ñu sëlmalee tisbaar moom la ñuy wax bu ñu sëlmalee takusaat moom la ñuy wax bu ñu sëlmalee julli yépp moom la ñuy wax lu tax ndax mooy xalaat yi nga doon def julli gi yi ngi ci mànkeel ci saase nga jéggalu ko yàlla tabaraka wa taala balaa ngay génn fi nga nekk nee na jéggalu yàlla mooy mottali mboolem jëf yu baax yi mooy mottali julli assalaa wal hajj wa qiyaami leyl wa taxtibu bil majalis fa in kaana majalisu zikri kaana tabu alayha hatta rasul sallallahu alayhi wa sallam su toogoon fenn bay jóg day jéggalu yàlla tabaraka wa taala wax astaghfirullah sahaaba yi sax nee nañ doon nañ konteel yonent bi alayhi salatu wasalaam ci benn place bu mu toog ginnaaw bu waxee kafaratul majlis subhanaka allahuma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk loolu mooy kafaratul majlis gis nga baatu istighfar dafa ñëw ginnaaw tawxid waaye ñu lënkale ko ak mbooleem feewu jaamu yàlla yi mbooleem jaamu yàlla boo def ba muy jeex bëgg nañ ci yow nga jéggalu yàlla tabaraka wa taala ixwat al iman naka noonu kazalik yambagi an yuxtama siyaamu ramadan bil istigfar li war ci jullit ginnaaw ba mu wooree weeru koor ba pare an yaxtima siyaam ramadan bil istigfar ginnaaw ba mu wooree ba pare nay jéggalu yàlla ndax xamul yàlla nangul na ko wala yàlla nangul ko kon na jéggalu li mu manqué le woon ci weer wi ci koor yu ba cëg yi ak naafila guddi yi mbokk yi kataba omar ibnu abdul aziz rahimahullah ila al amsar yaamuruhum bi xatmi shahri ramadan bil istigfar wa sadaqa wa sadaqatu lfitre Omar ibnu Abdul Aziz xam ngeen ne kenn la ci ñu mus a wuutu yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na sax ñoo ko ñoo xam ne dañ koy compter ci xulafa rachidin moom ba mu jiitee ba weeru koor jeex dafa bind ay lettre ci gouverneur yépp mu ne leen jeexale leen koor gi bi koor gi di waaj a jeex la leen bind ay lettre mu ne leen jeexale leen weer wi ci jéggalu yàlla ak joxe seen azakatul fitre mbokk yi kon ñaareelu taxawaay ginnaaw ramadan mooy dañu war a jeexale weer wi ci di jéggalu yàlla tabaraka wa taala waaye loolu mooy nit ñi ñoo koy def ay nit waaye xam nga ki woor weeru koor ba pare organiser soirée ñu ngi may nettali tey ci suba ci fiñ mi fii fu soriwul ay nit yoo xam ne ba ñu jeexalee koor dañoo organiser soirée kañu ndeyale soirée ba ba soirée bi jeexee ba ñu tëggee sa ju journée qualité bi ba mu jeex ca fajar ja kañ ko ndeyale woon daal di dee kañ defoon marine ba marraine ba moo dee ba soirée bi di jeex rek ci fajar gi kooku ci la dee xoola ay jullit di woor ba koor jeex ñu ne leen tëje leen ko istighfar jéggalu leen yàlla ñoom ñu tëje ko ay soirée booba léegi lan ngeen gis ci réew mi daanaka jaamu yàlla bi nee nañ jeex na nit ñi dañuy fàtte ne génn ñu ci islam mais ci koor lañ génn maa xaraj naa fi islam wa innama xaraj naa fi ramadan dañuy fàtte ne génn ñu ci lislaam ci ramadan lañ génn ramadan moo jeex waaye diine lislaam du jeex ba yowmal xiyaamati loolu la jullit yi di fàtte jàpp na ne waratuñoo dem jàkk waratuñoo julli waratuñoo jàngal quran waratuñoo waratuñoo loolu mbokk yi musiba bu rëy la ci feebar la ci réew mii ci xeet wi ixwatal iman ñetteelu taxawaay bu nu war a taxaw ginnaaw ci baada ramadan ginnaaw bu ramadan jeexee alwaqafatu salisa laqad madat al amal walsiyam walqiyam walzakat walsadaqa wa xatmi alquran waddua wa zikri jamono juñ nekkoon ci jamono jaamu yàlla lañ nekkoon mooy weeru koor jëf yu baax yooyu dem na koor gi dem na qiyaam ya dem na zakatul fitri ba dem na alquran ban doon jàng dem na zikr yañ doon def dem na waaye léegi nag yooyu ñamu dem ca ñoom mooy ña ko doon def léegi ña ko deful woon nag est-ce que seen yëf dem na wala ña ko defoon mu manqué ñooñu seen mbir fu ñu koy seet loolu tax yàlla moom du jeex chaque jour mu ngi fi kuy jaamu moom yàllaa ngi fi mbir yooyu nga defoon nga xam ne dem na jeex na yow mi ko defoon ndax am nga kóolute ne yàlla nangu na ko wala yàlla nanguwu ko nit ñi doon woor kan ci ñun moo xëy fekk biir këram lekk bu jógee ca yàlla yàlla ne ko nangul naa la ko looloo tax ñu war a bàyyi xel comme xamuñu ne nangu nañ ko wala nanguwuñu ko ñu war a góorgóorlu sax ci njub waabud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin ixwata al iman te naka la ñuy xamee ne yàlla nangul na kii mooy weeru koor gi jeex ñu gis ko mu continuer daraan yeewu julli ji fajar mu continuer danaan jàngal quran mu continuer danaan def ay azkar mu continuer dafa sajjoon xefam mu continuer dafa bàyyi woon def lu bon mu continuer lu tax lan mooy signe yi innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yàlla rek la yàlla di nangul waaye ñi nga xam ne ay caaxaankat la ñoon yàlla du leen nangul kaana salaf ayuha al ahbab yajtahidun fi ikmaali al-amal wa itmaamih wa itqaanih summa yahtammuuna ba'da daalik bi qubuulih wa yaxaafuuna min raddih mag ñu baax ña salafu saalih ñoom Abu Bakr ñoom Umar ñoom Usmaan ñoom imaamu Maalik ñoom Saafi ñoom Ahmad ñoom Xasanul Basri mag yooyu ñooñu dañ daan def lu baax ba pare ñuy góorgóorlu di ko matal. di ñaan yàlla mu nangul leen ñuy tiit balaa yàlla di leen ko delloo ndax mën ngaa def ba pare yàlla mu ne la soxlawu ma ko jëlal loo ci mën kenn ci ñun ku woor ba pare yàlla ne la jëluma ko fo loo ci mën ku julli xiyaam ba pare yàlla mu ne jëluma ko nga jàng alxuraan yàlla mu ne la jëluma ko loo mënal yàlla faalun li ma yurid mooy def lu ko neex te moom yàlla laa yusal amma yafal wa hum yusaluun kenn du ko laaj lu tax nga def te yow loo def suba ñu laaj la kon ñoom dañ daan jaamu yàlla ba pare yemuñ ci jaamu yàlla bi waaye ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala moom yàlla yal na leen ko nangul allahu akbar lu tax sunu borom nee na wallazina yuufuuna ma ataw wa qulubuhum wajila dañuy matal li ñu leen sant ba pare seen xol yi di toj ndax naan ay waay ndax sunu yàlla sunu borom nangul nanu ko wala nun kenn rek waxuma dara ku dem ñetti fan qiyaamul layli rek da ngay gis mu commencé di bàkku di kañ boppam di fëgg dënam temps yi qiyaamul layli bi tardé wu ma temps yi temps yi commencé qiyaamul layli temps yi imam bi temps yi jooy yi temps yi temps yi loolu ngay dégg ñu wax sunu sunu jaamu yàlla yëpp mbokk yi ngisal yàq na ko ak déggtalu dañ ma envoyé benn benn benn benn image ci sama portable julli korité jour julli korité waa ji di julli di whatsapp bopp di filmer boppam mu ne ni benn loxo lay waxee allahu akbar beneen baa ngi naan ni di filmer mu naan ni allahu akbar benn baa ngi filmer benn bi moo naan ni allahu akbar bu imam bi di def allahu akbar def nii beneen baa ngi ni yor wat muy sinap allahu akbar chaque jour ma wax ko du ma fàtte mukk sama aj gu njëkk ñu ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci rawda ndeysaan xëy jëm jàkka yonent bi ran war a ñëw nag taxaw ndeysaan ci buntu rawda fi ñu suul yonent bi fi ñu ko denc benn waaye mu ngi sama kanam moo jiitu moo ngi yor portable bi di filmer mu ne nii rek taxaw ci kanam alkaati bi mu tiit mu ne alkaati bi usawir ma fato alkaati bi ne ko unzur maza ataka bi iza kana taswir fa sawir xoolal lu la fi indi rek bu fekkee photo moo la fi indi nga photo xoolal lu la fi indi ma ne kii ma ne alkaati bi waxula kii kii al man mii lay waxal xoolal lu la fi indi allahu akbar mbokk yi lan moo nu indi fii lan moo nu indi ci kaw suuf lan moo nu indi tey jii ci jaamu yàlla yi lan moo nu fa indi lu dul ñu xam sunu boroom ñu jaamu ko mais tey musiba moo nu dal ba ci armeel yi sax da ngay gis ku nekk ci armeel yi ñuy suul mu dugg ci pax bi diw di filmer mu ngi ci biir pax bi mu ngi ñu ngi suul mbokkam muy filmer génn na mu ngi julli mu ngi filmer moo ngi saraxe waa ji di sarax miskin bi di filmer miskin baa ngi nii mu ne nii muy filmer après soo paree koo koy won yàlla moo taxoon ngay def walla lan la yàlla waxoon wa ma umiru illa li yabudullah muxlisina lahu diin al ixlaas tey mbir yi ixlaas moo ci deñ te yonent bi waxoon na sallallahu alayhi wa sallam annaasu kulluhum halka illa al aamiluun wal aamiluuna kulluhum halka illa al aamiluun wal aamiluun kulluhum halka illa al muxlisuun yonent bi nee na wal muxlisuun ala xatrin azim adduna bi ñëpp alku nañ ba mu des ñi xam ñi xam alku nañ ba mu des ñiy jëfe seen xam-xam mu ne ñiy jëfe seen xam-xam alku nañ ba mu des ñiy sellal mu ne ñiy sellal ñu ngi ci danger ñiy sellal ala xatrin azim ñu ngi ci danger fu ñu jëm kon loolu mooy ñetteelu taxawaay al waqfatu rabia al muwasala ala al amal baada ramadan muwasalatu taa wal ibada baada ramadan ibadallah foog nu continuer al muwasala mooy continuer amul taxaw dañ naan ramadan jeex na rek yàlla jeex na génn nañ ci lislaam déedéet continuer di julli ji continuer di jaamu yàlla continuer di sajj continuer téye sunu làmmiñ continuer téye sunuy loxo téye sunuy tànk téye li nekk sunu diggante ñaari ŋaam téye li nekk suñu diggante ñaari tànk kenn du wax ne weer koor jeex na am na nu liberté lu nu neex def bu neexee jalgati lu nu neex ñu def almuwaasala foog ñu continuer jaamu yàlla tey boo duggee ci jàkka yi da ngay rus bu fekkee ne ab jullit nga bu imaan nekk ci yow weeru koor jàkka yi fees guddi ak bëccëg suba ak ngoon jàkka yi fees tey jii boo duggee ci jàkka doo gis ñetti nit ana ñi doon feesal jàkka yi ramadaan ana ñu dañoo yeggaat kaw asamaan dañoo duggaat ci biir suuf wala dañoo duggaat ci biir géej gi fu ñu nekk laaj la boo xam ne maa ngi koy laaj sama bopp di leen ko laaj ku ci xam dara mu dimbali ñu ci ana ñooñu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala li nu war sunu ñeenteelu taxawaay ci weeru koor mooy nu continuer xam ne du yàllaa jeex xam ne du jaamu yàlla moo jeex waaye weeru koor moo jeex weeru koor nag yow mi ko doon woor dafa am ku la ko santoon ne la wooral moo la santoon julli yi moo la santoon jàng alquran yi moo la santoon bépp xeet jaamu yàlla boo doon def ci biir weer wi ndax mbokk jullit jàng nañ alquran li yàlla wax ne dañoo war a continuer bu ñu taxaw sunu borom subhanahu wa taala ibadallah an allazi yattaqi llah haqa tuqaadi yuwaasil ala taa yuwaasil ala taa wal ibada an allazi yattaqi llah haqa tuqaati yuwaasil ala taa wal ibada sunu borom subhanahu wa taala mu ne ki nga xam ne dafa ragal yàlla moom day continuer moom du taxaw kooku la yàlla naan qad aflaha almuminuun allazina hum fi salatihim xaashiun ki texe dëgg qad aflaha almuminuun ñan ñooy ñi texe ñan ñooy muminuun yi mu ne allazina hum fi salatihim xaashiun ki nga xam ne buy julli day toroxlu waaye sunu borom bi mu leen di lim ñooñu dafa ne wallazina hum anil laghwi mu'ridun laysa fi ramadan faqat wa innama fi hayatihim kulli nekkul ne rebeeru koor rek wa iza marru bil laghwi marru kiraman bu ñu rombee caaxaan dañuy romb dem seen yoon duñ taxaw wallazina hum anil laghwi mu'ridun yàlla nee na ñooñu ñi texe mooy bu ñu rombee foo dañuy dem duñu taxaw ñun dañuy participer dañuy cotiser ak a bëri keroog ci julli korité ñu julli si woon te ngoon nga dañoo baali ak a bëri woon ci ñooñu tey ñu ñëwaat tey ba pare naka ngay waxee ne yow gëm nga yàlla vendredi bu nekk nga taxaw ci kanamu yàlla waxtu juróom yëpp nga taxaw ci yàlla naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fekk du dëgg ci yow boo génnee defi leneen iblis jàpp sa bakkan yóbbu defi leneen lan moo tax mbokk yi ñun ñu yomb lan moo tax ñu oyof mel ni ay këyit fu ñu ngelaw fu ñu seytaane yóbbu rek tourné ñu dem lu tax ñu oyof te pourtant ci sunu mbiru àdduna dañoo dëgër këcc kenn mënu ñëw gën bàyyiloo sunu wàllu àdduna waaye bu desee yàlla rek nga oyof mel ne benn këyit nga mel ne benn witteen fu la ngelaw lu yóbbu rek fu la iblis fekk rek daal di jàpp sa loxo daal di lay yóbbu ixwatal iman beneen taxawaay bu ñu war a taxaw mooy al waqfatul xaamisa adamul igtira bima xasala min ataat adamul igtira bu nu waru nag bu kenn ci ñun waru war naa weer wi julli naa guddi yi taxaw naa laylatul qadr wàcce naa nangami kaamil def naa nangami astaghfirullah saraxe naa kon man fi mu nekk nii set naa wi ci terminé damay dugg àjjana bul waru de yaa ngi waru yaa ngi gis sa bopp yaa ngi naagu de te olof yi nee nañ ku naagu daagu te ku daagu nu dab la kon bu nu gis sunu bopp ci jaamu yàlla yu ñu doon def ci baada ramadan gina ava ci ramadan al igtira bima hasala min attaat فعلا بعض الناس اجتهدوا فعلا صاموا وحفظوا جوارحهم وختموا القرآن léegi nag am na ci ñu góorgóorlu jàng nañ alquran téye nañ seen i cër def nañ lu baax waaye léegi nag ndax dañ naan lu baax li jeex na lu neex def bu nu waru bu kenn ci ñun waru ndax xamoo ne Ramadan déwén dina la fekk continuer ci jaamu yàlla gi ndax xamoo ne malakal mawti mu ngi sa kanam xamoo ndax yow di nga fekke waat ramadan juróom-benneelu taxawaay al waqfatu sadis la yustart an yakuna ba'da ramadan kama kunna fi ramadan fa nahnu na'lam anna dhalika mawsimun azim juróom-benneelu taxawaay mooy sartuñ ci ñun kenn waxuñu déedéet nu ngeen meloon weeru koor mel leen ko ngeen continuer ko kenn waxuñu loolu mais dañu ne dañ góorgóorlu ndax weeru koor munul tolloog yeneen weer yi ndax weeru jaamu yàlla la ndax weer wu ñu yeew iblis la yeneen weer yépp dañuy bàyyi iblis ak nun waaye nag dañu ne dañ góorgóorlu kenn sartul ci ñun na ngeen xiyaamul layli ba dee na ngeen jàng alquran na ngeen na ngeen na ngeen déedéet ramadan jeex na waaye jaamu yàlla du jeex noonu nga meloon ci ramadan bi dañu bëgg nga góorgóorlu ba bul wàññi 100 pour cent minimum booy wàññeeku na 5 pour cent dem na 5 dem 100 yi des leneen li des téeméer bi yëpp na ci juróom rek wàññeeku nga continuer ca leneen la nga saxoon waaye koo xamante ne yow ramadan jeex na nga demaat ba zéro zéro loolu wax dëgg yàlla musiba la kenn sartul ci ñun ñu sax ci noonu ba dee parce que mënuñu ko waaye dañu ne nan góorgóorlu bu nu wàññeeku ba jeex tàkk nag minimum boo doon yeewu fajar di dem jàkk daa nga yeewu di naafila 4 heures du matin nga continuer dem jàkk minimum continuer jàkk bi daa nga jàng ñaari xisib minimum jëlal benn wala nga jàng ñeenti fooy wala nga daa nga def minimum lenn li bul bàyyi yépp waaye continuer ci lenn lu baax loolu mooy juróom benneelu taxawaay juróom ñaareel al istimrar ala al ibada wa taa sabab min asbaabi husnul xaatama dee dee bett kon saxal ci jaamu yàlla gi xamoo kañ ngay dee tuub nga démb boo nee naa jalgatiwaat ba ramadaan ñëw nga dee ci digg bi foo jëm benn waaye dafa jaamu yàlla juróom ñaar fukki at musul mooy yàlla iblis feeñu ko ne ko yow dama laa bëggoon rey damaa bëggoon boo toogee ci suufu miir bi rek ma daaneel miir bi sa kaw nga dee waaye damaa xam ne gis naa sa sa fëy yow war nga dund nekk ñaar téeméeri at yow war nga dund ñaar téeméeri at ma bañ laa yàqal waaye bu ma xamoon du loolu dama lay rey rek nga dee benn yoon ndax yow da nga bëgg jaamu yàlla trop mu ne ko ah kon gis nga sama fëy mu ne gis naa ko mu ne ñaata at moo ma dese mu ne ko ñaar téeméeri at rek waa ji daan ne ci xelam ah comme man ñaar téeméeri at ma dese te jaamu naa yàlla lu toll nii naa faw téeméeri at après ma tuubaat nag li ci des naa faw téeméeri at yi waa ji xëy commencé foo rek ndeke ca suba sa la waroon dee mu daal di dee gis nga ni ko iblis yàqale yéenem la ko yàlla fay moo tax iblis dafa yàqalaate nee na laa azalu axwihim ma daama arwaahum fi ajsaadim feeg yéegeen ni nooyi duma leen bàyyi kon mbokk yi nanu continuer al istimrar ala al ibada wa taa beneen ba ca tegu mooy al waqfatu saamina juróom-ñetteelu taxawaay mooy an allazi daxala ramadan bil maasi wa xaraju min ramadan bil maasi lam yastadu lam yastafidu shay'an min ar ramadan ñu duggoon ci ramadan ci weeru koor ñi ramadan fekkoon ñuy mooy yàlla ramadan jeex bàyyi leen ñu mooy yàlla ñooñu moom loolu yàlla di wax ci alquran fa ida jaauka qaalu amanna wa qad daxalu bilkufri wa hum qad xaraju bih wallahu alamu bima yaktumuun bima kaanu yaktumuun sunu borom nee na am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci yow muhammad ñu ne la ñun ay jullit lañ gëm nañ yàlla bu nu génnee nekk ay yéeféer yàlla ne ba ñuy dugg ci yow ay yéeféer lañ ba ñu génnee ay yéeféer lañ ndax man yàlla maa xam la nu nëbb am na ñoo xam ne bi koor gi di ñëw ci bàkkaar la leen fekk bi koor gi di jeex ci bàkkaar la leen bàyyi ramadaan ñëw na ay yéeféer lañ ramadaan jeex na ay yéeféer lañ mbokk jullit yi juróom-ñeenteelu taxawaay bu jullit war a taxaw ginnaaw ramadaan mooy maasi ba ramadaan allahu akbar am na ñoo xam ne ci biir weeru koor lañ doon def bàkkaar ñoom di sëy di njaaloo ci weeru koor di tux di dóor ay mart woor ba ngoon ndogelu araam jël alalu jàmbur de ko lekk ñooñu musiba dal na leen alkunan nga gis ci koo xam ne dafa woor iblis jàpp ko mu dem sëy ak jabaram ramadan wallahi am na ku ma ko laaj ci weer wi def naa musiba de lan la mu ne damaa sëy sama jabar lan laay def ma ne ko kafaara ku yàlla nattu nga def loolu da nga war a kafaara waaw léegi bu fekkente ne kii dafa sëy ak jabaram ci weeru koor ñu ne ko kafaaraal ki sëy ak jabaru jàmbur ci weeru koor nag ki sëy ak beneen jigéen nag ci weeru koor nag te du sa jabar kooku ban kafaara ngay def ba yàlla jéggal la mooy sa adduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na mbokk yi nañ góorgóorlu ki nga xam ne dafa tooñoon yàlla ci weer wi na kafaara pour yàlla jéggal ko ku sëyoon ak borom këram ku sëyoon ak jabaram ku sëyoon ak ay bàyyima kafaara daf lay war xam ngeen kafaara weeru koor mooy goreel jaam wala nga woor ñaari weer yu toppante wala nga jox 60 miskin minimum ku nekk 1000 francs itaamu sittina miskinan mbokk yi fukkeelu taxawaay bi hal taalamuna man humul faizun est ce que xam nañ ñan la yàlla nangul ci koor gi ñan ñoo texe ci koor gi ñan la ñun ñi waroon ñëpp góor ak jigéen ñi ci biir ak ñi ci biti ñan ñoo xam ñan la ci yàlla nangul man humul faizun ndax xam ngeen ko ñooñu ñi kese la mooy fa man zuhziha ani naar wa udxila al janna faqad faaz mun demee ëllëg yow ma xiyaam ci kanamu yàlla ku yàlla rëccal génne la safara dugal la aljanna rëccal la duggoo safara nga dugg aljanna direct ñooñ ñooy ñi taxe ndeke tey dañuy liggéey addunya daaru amal wal axira daaru sawab dañoo nekk tey adduna pour liggéey alaxira la nu yàlla di fayee mbokk yi ci yàlla yal na nu yàlla nangul nangul leen yal na nu yàlla nangul nangul leen yal na nu yàlla saxal ci njub yal na nu yàlla saxal ci siraatal mustaqim ñoo ngi leen di ñaanal bu baax fu nu toll c'est parce que yéen a ngi jàpp ci dundu miskin yi fii ci biir jumaa ji waxtu nekk suñu leen waxee am na benn miskin bu am jafe-jafe ku nekk dina génn dërëmam def ko ci loolu ba ci korite moo mujj miskin yi fi julli si woon yëpp ku nekk keroog ba ngay dem yàlla def na jox nañ la junni ñeneen ñi am na ñoo xam ne yónnee nañ leen ñaari junni ñii junni seen biir kër te loolu yéen ñi yéen a ko génne seen poos yal na yàlla fay leen yiw ni nu yàlla boole ci jumaa ji boole ñu ci jàkka ji yal na nu yàlla boole noonu ci keppaaru aljanna firdaws ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw am na ay mbokk jullit yoo xam ne noo ngi leen di tàggu dañuy dem réew benn rihla daawa tukki boo xam ne dañuy woote ci ci yàlla tabaraka wa taala benn dëkk bu nu dégg chrétiens yi daanaka ñu ngi koy nangu ca jullit yo am benn délégation bi fa war a jógee jëm ca dëkk boobu tey ci guddi 4 heures du matin dañ ne ma woon bu ma ñëwee ñu sàkku ci yéen ay kaala ay yére mais dafa xat comme duñu mun a indi ay kaala wala ñu jox leen ay yére pour ñañ fay fekki kenn ku nekk ci ñun incha allah mbokk yi buñ paree julli lu yemb ci sa poos loo mën a yóbbante mbokk yooyu pour ñu jëndal leen ko sëri ca dem fa de préparé nañ ba pare bu ñu jullee ba pare incha allah dañuy tekki bagage yi un nañu groupe un nañu rajo un nañu ay écran géant un nañu ay téere alquran dañuy dem dëkk boobu ba dimanche ci ngoon incha allah ñu fas yéene ñibbisi noo ngi ñaan yàlla ngeen ñaanal ñu dem ci jàmm ñëw ak jàmm allahuma axfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt bi rahmatika ya arhamar rahimin kon ñoo ngi wax incha allah tafsir bi du mun a am suba nan bàyyi ba beneen yoon incha allah buñ ñëwaatee ñu daal di koy continuer qumu ila salatikum yarhamukum allah